asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Obelus TV yéen ñi nga xam ne yéen a ngi si réew mi ak si bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal si seen biir émission sifflet final bi nga xam ne seen yëf la yéen a ko moom. comme d'habitude dinañ ci dalal Momar Cissé ak Landing Goudiaby li nga xam ne moom moo war a nekk ndorteelu waxtaan bi tey mooy final coupe du monde 2018 bi ñu jóge mu nekkoon si diggante France ak Croatie te nga xam ni France moo ko mujjee gagné ci ñeent bal ci ñaar. alors euh, Mama Cissé damay tàmbalee si yow alors naka nga jàngate euh, match final coupe du monde bi entre France ak Croatie. asalaamaaleykum beneen yoon mbokk téléspectateur Obelus TV damay wax rek match bu plaisant la ñaari équipe méritant dem final am na lu bëri ñu ci mën a jàngat mais xam naa au fil de l' émission dinañ ñëw si jàngat yi. naka nga jàngatee sa première impression si match bi. waaw asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Obelus TV. bon final bi comme ñëpp pas, ah, bon ce fut une finale agréable gars yi yëpp toog nañ seetaan ko final bu neexee dans l'ensemble ñaari équipe. ils se sont donnés à 100 pour satisfaire les téléspectateurs je pense que loolu rek am nañ si ndam franchement. Euh, dama damay continuer si yow euh, tactique France bi yow ban comme ni ko seetaanee ni ma ko yow ban tactique nga gis ni France moom la gagné Croatie. bon France je bi de tactique bu extraordinaire fa parce que de un tamit soy xol peut-être mun naa wax bi mo gëna japp jàpp Croatie parce que si jouer jouer 3 matchs 120 minutes moom du ay tiahan quoi te exactement tamit français yi soy xol comme seen match yëpp ah dañuy taxaw di déglu sen adversaire à travers le ñom la ñuy joué seen coup de pied arrêté ak sen contre parce que contre tamit nañ waxante dëgg am nañ ay joueurs yo xamné ne mun nañ exploiter seen contre facilement parce que soy xol Mbappé wa mais xol le milieu terrain bi la plupart Kanté su récupéré ball tac Pogba la koy jox Pogba mooy sànni Kanté wala Griezmann ñu dew wala benn Giroud sax mu def déviation si ñoom ñaar donc foofu noonu ñoom dañ doon taxaw déglu xool Croatie ni ñuy mën a fubale ñoom ñuy protéger si seen vitesse yi bien vrai tamit andi nañ benn schéma tactique boo xam ne Deschamps moom la yàgg exploité si coupe du monde bi moom la ñuy France à travers loolu la gagné match bi. alors euh, Cissé euh, ban tactique nga gis ni France moom la utiliser si match bi. France comme à l'accoutumée benn Pour la depuis coupe du monde certains ba certes changé mais tactique est tantôt en 4-4-2 tantôt en 4-3-3 mais ba le système bu mu joué benn la Nous tax joué le bloc la ñuy joué dañuy taxaw dernière tiers nga avons ni ils sont défensifs fait dañ lay aspirer bu aspirer l'adversaire, devant ñu avons fa am ñaari flèche ku si mel Kylian Mbappé ak Griezmann nga au milieu de terrain nous avons quelqu'un qui récupère pratiquement tous les ballons qui se nomme N'Golo Kanté bal yëpp moo koy récupéré bu récupéré bal bi jox ko un Pogba époustouflant ci coupe du monde bi Ben relance les gagner bal yi jox Kylian Mbappé wala mu jox Griezmann te ñoom ñaar ñëpp point de vitesse Kylian Mbappé kenn werantee du ko ci coupe du monde bi il a fait pas mal yu ay équipes yoo xam ne yu lay depuis seen premier match Bien nga Olivier ni Olivier Giroud ton partant nous sentiroon que nous avons ay difficulté yu nekk ci équipe de France bi pour ñu am ay occasion à partir du deuxième match ci le Didier Deschamps gis faay Olivier Giroud depuis lors pratiquement changé le système de jeu même tactique lay joué ñaari joueur rek la doon altéré certes Tolisso des fois mu dugg des fois match di dugg mais changement yooyu daf koy def selon adversaire bi nous am kon Didier Deschamps bi muy ñëw ci coupe du monde 2018 bi indi woon na benn projet de jeu bu leer bo xamné ni li lay continuer et non la def ba yegg ci finale 2018 yow France euh, euh, mok équipe yu mu tassel yépp est-ce que mom mo leen ëpp jeu suma né jeu nak possession motax tax may wax possession balle bi quoi non France euh, ñëwul pour possession de balle possession de balle boy xol équipe yi ko gënoon am ci coupe du monde bi ñom bokku nañ ci ñi njëkk tok toog mën naa jël Espagne nga xamné 99% possession dañuy bal 4000 passes contre 100 passes loolu wu fi nit ñi pour pour pour pour ci compétition bu mel noonu waaw mais loolu spectateur yi ñoy bëgg loolu téléspectateurs yi bon ñom ñoy bëgg lool gis ben équipe bo xamné équipe spectaculaire la di def ay gestes techniques di passante di doute nga xamné ne indi wu fi nit ñi France li leen fi indi dafa leeroon moy lan ñëw pour la gagne té gagné nañ certes football luñ football bo xamné spectaculaire lay mais luñ soxla won am nañ ko à chaque fois dañuy accéder facilement ci sen camp adversaire yi et loolu lañ continuer ba gagné coupe du monde. d'accord alors Lani euh, France bama doom doon limal tey ñetti équipe yu ëpp jeu ci coupe du monde est-ce que France dina ci bokk. équipe bu nekk day andi jeu am rek. France dañaa andi seen jeu su nekkee nag si wàllum possession de balle mooy mooy nga téye balle bi comme gars yi nañ koy football bu rafet football football Guardiola bi rek mun naa football Barça bi coupe du monde bi doxul parce que comme Mamad Cissé nu mu wax rek sooy xool équipe les équipes les plus joueuses à travers ñoo xam ñooy téye lu ñuy ëpp possession de balle bi la plupart équipe yooyu noonu dañuy am du mal C'est euh, coupe du monde gis nañ ko la preuve Espagne mini. si l'on lañ leen xamee si lañ amee seen deux sacres coupe d'Europe bi ak coupe du monde bi mais tey xoolal Espagne huitième de finale togué eh, Russie moko ko té pourtant match boobu moo yoroon possession de balle donc possession de balle taxul nga gagné té France tamit won nañu ko en France parce que soy xol France à travers sen match ces matchs, match presque gars yi ñoo possession de balle ñom comme ni wax ñom dañu am sen système bu ñuy teg ñu ñëw. té comme ni nga sànq muy wax ci cadre Tolisso Tolisso so gisee Tolisso premier match de football contre Australie. français yëpp ñëw coow genre Tolisso n'a pas fait son match peut-être ñu ne Pogba ak kii nii à côté de au côté de Matuidi day gën a nekk à l'aise déjà mu ñeu deuxième match bi troisième match bi kii ko so le match bi lu mu football moi je pensais Matuidi dafa am sanction. dafa am sanction moo mu football. waaw moo dafa am sanction moo tax Tolisso titulaire mais Mathieu su amutoon sanction Tolisso mun naa wax peut être amati place de titulaire eh, kii nii. coupe bi Monde, ay deuxième mi-temps lay dugg ci xol ni ñuy casser rythme équipe France. mo bëggoon ñu ñeu ci def ben bilan bu ndaw ci coupe du monde bi ndax gis nañ ni amna ay coppite yo xamanteni def nañ ko si mu VAR bi ak quatrième changement buñ ci yokk alors Cissé ndax gis nga ni loolu li améliorer football bi la wala lu koy delloo ginnaaw la. papa loolu c'est un débat éternel VAR bi ak quatrième changement bi man damay wax débat éternel la su ma ñëwee ci quatrième changement bi loolu lu baax la ci ci ci équipe yi parce que booy jouer benn match nga dem prolongation 120 minutes. nga def trois changement changement yi jeex ñu may la opportunité nga defaat quatrième changement loolu lu baax la parce que dina leen permettre ñu gérer seen effort physique mais ñu ñëwee ci VAR bi nga xam ne nii dafa polémique nous avons critiqué ay joueurs ay anciens joueurs ay experts Maintenant, citer comme Suarez maintenant naa cité comme Iker Casillas maintenant naa citer comme nous les pays africains critiquer nañ VAR bi lu nous ñu critiqué mooy VAR bi favorableul benn yoon ci pays africains intervenir des fois baax parce que tamit l'erreur est humaine arbitre yi ay nit lañ des fois ñu jum parce que le monde bi day évoluer su sommes sur ce côté là côté technologique VAR bi mënoon na indi ay solution mais nous avons ne VAR bi toujours arbitre bi suñ ko intervenir ba mu dem ci VAR bi le plus souvent décision bi ba léegi ci moom lay ñëwaat te VAR bi kon man dama naan mayul autonomie arbitre boobu nga xam ne moo nekk ci terrain bi kon dafa mel dafa am keneen koo xam ne moom mooy jugé arbitre bi nekkatul arbitre bi moom mooy jugé ses propres faits. waaw mais est-ce que est-ce mayu ko aussi pour mu gis lu mu gisul woon si si match bi. mën na ko may mu gis lu mu gisul woon mais boo demee ñu ne la le jugement dernier vous revient wala le mot dernier vous revient xam loolu tamit day xaw a doy waar. te booy xool am na penalty yu fi leer. am na penalty yu fi leer. VAR bi arbitre bi dem fi te bu mu demee pourtant sifflé wut ci faveur kooku man daal benn acte gis ne VAR bi def na ko c'est un acte à saluer mooy penalty bi nga xam ne defoon nañ ko si Neymar mu dem xool ne lii du penalty fekk effectivement du penalty mais pour le reste daal VAR bi ba daal day yàq émotion football quoi pour man daal ñu dindi ko moo gën. noonu nga ko gisee alors Landing yow déjà VAR bi naka nga ko gisee ba pare. man je

après 5 5 minutes arbitre bi instant xam nga donc je me dis carrément man suis VAR bi franchement je ah, gisuma utilité coupe du monde je me dis Je ah, su man kessé VAR bi nañ ko éliminer ñu football bi fu en plus euh, landing lo ci à chaque fois man gisuma dimbelé les équipes les plus faibles. surtout pays africains. Nigeria, nigeria penalty Maroc amna penalty Sénégal amna fi penalty. à chaque fois VAR bi bu ñëwé du may faveur. mais demb rek gis France. France Croatie su nekkoon Croatie bon, am penalty ñëpp ñu ngi ko doon est-ce que arbitre bi dina penalty boobu pour Croatie. en plus am la benn match bu mo xawoon match kon match Russie Russie bi nga xamné ne c'est le pays organisateur amoon nañ fi penalty bo xamné ne équipe adverse moko amone mu leer nañ contre Espagne merci contre Espagne amoon nañ fi penalty bo xamné ne c'était pour l'Espagne te lool mo leen doon permettre ñu qualifier mais VAR bi bu mu ñëwee man à l'instant tey bi ma nekkoon di sétane nee VAR bi du accorder penalty Espagne et bi mu effectivement. mais mais mais dama bëgg dama bëgg laajte est-ce loolu si vidéo bi la wala si ñi qui koy utiliser. mais vidéo bi la tamit ah man sama di vidéo parce que xam nga des fois arbitre arbitre assistant yu yor VAR bi ñom des fois ñom ñoy wax arbitre bi par exemple dara amna les comme si so lu muy wax rek dernier mot bi arbitre central bi le revenu yow léegi arbitre central yo yow man je me dis do passer wu si VAR bi quoi parce que yow tamit bon di nga am ay doute di nga ne lii penalty wala du penalty. Ah, euh, changement 4 quatrième changement 4e quatrième changement lu tu la parce que sooy en euh, kii ni championnat Angleterre gars yi si seen coupe bi. Euh, def nañ ko gars suñu àggee prolongation dañ leen di may ñu ki ni ñu def 4e changement parce que dañuy gis ni que joueur yi dañuy son. donc instant yoy noonu coach bu nekk peut-être mun na am ben ki ni effet positif boo su dugalee joueur su gisee ni dina dugal joueur bi ni mun na kaa gagner match day def changement bon, donc 4e changement bon, franchement je suis d'accord. lan lañu mëna jangal ci coupe du monde bi comme bilan de manière générale. bilan coupe du monde de manière générale ñu ñëw ci côté organisation yaakaar naa ñëpp rafetlu nañu organisation coupe du monde bi président FIFA euh, remercier Nogo, ci Fatma Samboura le secrétaire Cristiano Ronaldo dès l'élimination du Portugal Montamé, Rafael Luna. organisation bi côté organisation coupe du monde bi mais équipe les grandes équipes coupe du monde dañoo pratiquement ñëw bett nit ñi amoon ay quelques surprises à l'image de Mexique à l'image du Japon à l'image de la Russie Ils ñëw indi football boo xam football plaisant la fubal bu neex nit ñi la voilà yaakaaruñ ko ci ñoom wan nit ñi ne leen fubal léegi dëkkatul fenn ñëpp léegi ñoo yem pratiquement ci fubal de manière général daal gis nañ loolu et puis am na ay buts yu bëree bëri bëri lenn rek lañ ci mën a critiquer mooy VAR bi bi nga xam ne nii ba léegi nii ñu ngi ko doon wax léegi débat éternel la quoi. alors lan euh, bilan. waaw coupe du monde moom macha allah bilan bi mun naa c'est un bilan positif euh, sooy xool surtout cadre organisation bu ñu leen di jox coupe du monde bi bon ñu ngi doon kaas kaas ko trop sax mais gis nañ ni que côté organisation franchement ils ont su relever le qui Paris bon soo ñëw tamit si wàllum équipe euh, you ma xool yu ñu favori bon hmm, doy na waar favori yëpp a mais surprise yi bon man mun naa si tamit Angleterre parce que Angleterre équipe boo xam ne bu muy ñëw coupe du monde kenn xaar kenn xalaatu ko ñëpp ñu ngi doon Angleterre dañuy ñëw toog mais seen coach bi am na lu mu andi ay équipe jeune mu gëm lo leen andi ben système am mun na tamit le cas de la Russie parce que Russie ne ko 70e classement FIFA équipe yi ñëw coupe du monde yépp mo ci jëlone ndaare donc ñom mun na wax ni que franchement def nañ pas d'accord légui lan lañ mëna gis comme perspective pour coupe du monde bi di ñëw 2022. wa coupe du monde 2022 mom bii di ñëw dina xaw doy waa parce que dina am équipe yam nañ leen comme favori. de un la France Brésil encore suñu defar dinañ ñëw té Brésil nañ xamal dara Brésil coupe du monde ñu organiser organisé Europe yépp Brésil musul jël coupe du monde biir Europe histoire mo koy bind histoire la tamit bon 2022 euh, bi tamit ñu xaar VAR bi tamit quoi VAR bi moom franchement 2022 war nañ kaa mën a éliminer si VAR <laughs> euh, a gis comme perspective pour coupe du monde bii damay rebondir fi sama bi daanelee rek landing mooy ci VAR boobu xam naa Infantino moom ci boppam président FIFA d'accord na ak nit parce que dès le match du Sénégal bi nga xam ne nii indi woon ay coow yu bari bari la lendemain gis nañ mu def benn sortie wax ne dinañ ñëwaat ci VAR bi waxuñ ne dinañ ko éliminer totalement mais dina am ay points yoo xam ne peut-être dinañ ko xoolaat quoi. en plus comme Lengs lu mu wax léegi rek ne coupe du monde bi euh, nu mu tudd euh, Brésil musu jël coupe du monde Europe coupe du monde bi ñuy organiser bii di ñëw nekkul Europe peut-être kon dana nekk porte chance pour pour Brésil mu jël ko mais toujours ñu xaaraat ba léegi rek ne équipe bu mag.